jërë ngeen jëf maire mu Macky Sall merati moom la journal l'Observateur xëy weerati ci xëtam mu njëkk ba xamal ñu ne maire mi mi ngi ko mer keroog alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar ci ndajem secrétariat exécutif national bu parti bi di APR ndajema ci vision conférence la woon waaye borom parti bi di Macky Sall dem na ca banaan responsable yi parti bi amuleen rusukaay li jur maire mi l'Observateur nañu moo di bi ministre Abdoulaye Badji mi yoree koppari parti bi jëlee kàddu gi di leeral fa cotisation yi li ci keesu parti bi matul benn million ndax dafa am ci parti bi ay responsable loolee nag moo merloo Macky Sall ndax ci parti bi responsable ya ca nekk mat nañu juróom-benn fukki responsable cotisation yi ñuy war a def weeru nekk mi ngi tàmbale ci ñaar fukki junni jàpp téeméeri junni mi ngi dépendre ci responsable bu ca nekk ak responsabilité yi nga am ci biir parti bi Macky Sall gis na benn million bi ñu ne ci la cotisation yi parti bi toll loolee jaaduwul gàcce la sax ndax lu mu bon bon danañu soxla wu nekk juróom-benn million ngir soxlay parti bi borom parti bi di Macky Sall doon président de la république bu Sénégal soleil national xibaar nañu ci xëtam mu njëkk ne ma nga woon démb ci réewum Guinée Bissau président bu Guinée Bissau di Omar Sissoko Embalo moo a baax am na ci réew ma réewum Sénégal gornoor yi fi nekk Macky Sall dooleel na leen anki dina moo ko bind ba dolli ñu ci ne doole ji mu leen dolli mi ngi jëm ci joxe suufas réew mi fare ci domaine national bi léegi ku bëggati suuf ci domaine national bi la nga ci bëgg bu weesoo juróom fukki hectare gornoor rek moo mën a approuvé délibération bi la si nekkaay nañu Macky Sall def na ko tuba yi paate képp ci bolle summi na élu yi solal nommé yi témoigné jàngee ci dogal bi ne président mi ko jël surveiller conseil municipal yi di leen mayi gët ba duñu defati lu ko ëmp loolee la ci jublu léegi domaine national bi bu ci nit te la nga cey bëgg am na nu muy toll il faut que délibération ba préfet wala sous préfet wala gornoor moo koy approuvé muy soog a mën a jaar ci yoon yoon bu ñu dana am yoon ca la xew ca nga ca tension bu rëy bu kër moo bëggoon a wàllum daje démb ngir samp membre yu yees yi war a nekk ca conseil ba waaye xaadim ba mi ne woon président conseil d'administration bu SAR te ñu tëbal ko la ne moo fa yebal ay nervi ngir ñu tere ndaje ma am fa bi coow li tàmbalee jolli ca la directeur général bu SAR di Serigne Mboup wooye ab huissier ngir mu defal ko constat bi Les nañu tàngoon na jër démb ca société africaine de raffinage ne xaadim ba ak Samuel Sarr la ne ñoo tere ndajem conseil d'administration Afrique ci conseil d'administration bi loolee ñu gàntal ko Les Échos nee nañu bëgg-bëggam yooyee tribunal faro ko ci da koo débouté sursoi nañu la xew démb ca Saar société africaine de raffinage kenn mësu koo gis ay nerwi yu ñëw taxaw ak seen doolee ne conseil d'administration bi du am ca kër ga loolee moo am démb ca Saar ba mu jur fitna ju fa jolli Diallo Aïda saf sàpp ci ne kay ñu xëyandool Les Échos wax ñu ne la mu defoon daaw moom soxna Aïda du bas mbaa ay cant yu ñu koy may ca ngaabu ndax dañoo gis ne moom soxna Aïda Diallo dafa xëtt ndigalal xalifa bi Les ko bind ne ci màggalu ren gi quarantaine nañu soxna Aïda Diallo ca këram L'Observateur ne ko dañu ko confiné ca ngaabu sursoi nañu Aïda Diallo akuk tagalam di wooteetig màggal ca ngaabu moom faat na surnal Le Témoin ñu dolli ñu ci ne moom soxna Aïda Diallo moo ki nagam yépp nee nañu leen fu ñu xam nañu jëm dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te ci réew meeg si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy télécharger rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleek coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement